bc say image bi da fi <laughs> donc on a arrêté en vœux de ndax ñu ko tek plateau pour def buzz comme nous ko foggé déedéet nit nak day droit à la parole wax expliquer liko ko ci mom xama lu leen di yem yeen que nit ki nous koy avertir ci émission bi ba paré mu dem ba ci biir wax lo ne wala amul parce que émission amul tabb ki muy dalal nag tey ci émission bi ku yéeme la kooku mësul tabb daal day saaga sax ay imam kon kooku moom la ñu dalal tey si sunu émission amul tabb kii ñi ci dalal tey moom moo nekk nii bu baax ñu ngi lay nuyu. Ousmane a onze bi llahi mina shaytaani rajim ñu ngi sant yàlla julli si yonent bi di sant bu baax assistance yi nga xam ne tey ñoo toog fii di ñu déglu wala di ñu seetaan waaye di nuyu mbokk internet yi nga xam ne tey li nga xam ne mooy émission ñu tàpp waaye di fësalaat suñu cofeel ak suñu kóolute si li nga xam ne tey ñooy site internet bu bomb si adduna bi yëpp ñu ngi Sénégal TV euh, je euh, ki nga xamantene ni moom invité kilifa bu mag la su ma def yàlla tax lan la sa xel def. waaw Ousmane je pense que c'est dafa que may jéggalu tamit ndeysaan sama sama jarbaat sama xarit Fatou ma seen bi ma je pense que je pense que concept la boo dinaa la ko tënkal rek dama seetlu sama benn grand bu ma nekkaloon ma seetlu ñetti doomam yoo xam ne ay différentes génération lañ kenn xaratu si maanaam kenn jonguwu si bi ma gëstoo ma laaj ko lu tax daf ma wax ni ma at mu nekk ma décider ko waaye finalement cin bi da koy toxal jur boobu laa yëg ci sama bopp ne war naa ay pexe pour solution am si lu mel nga ut ay pexe daal di jël ay xale di leen xarafal di def te yàlla rek tax dajale li nga am li nga man ak li nga manul laaj ay tuuti defal leen pendant un mois leen di leen jox ñu lekk di leen jox ñu naan waaye nag ci biir ànd def te yàlla tax boobu euh, gis ne da xarab autorité yi lu bëri da nga leen di saaga da ngay saaga dignitaires yi da ngay xabtalu xam nga moment boobu am daf ñuy dépassé ñu ñuy couvrir moment yooyu

malaaka mawti ñëw jël sama wéejur bu jigéen bàyyi ko fa moom avion bi bu riiree ñëpp yëpp waaw <laughs> ndeysaan aayu ñu quoi gars yi ah mais si tënk rek Ousmane man dofuma masuma dof te bokk naa si ñi ma jàpp ne ñoom la yàlla waxal ndax ci borom xel yi laa bokk nag te communication parfois nit ñi dinañ ko traduire de manière boo xam ne sax du taxoon jóg li tax kooku def loolu wala mu wax loolu je n'ai jamais insulté un imam musuma saaga imam musuma saaga autorité ah Bilal de ñëw na sama kër barki démb fekk nga ko place su euh, Njaajaan saaga ko saga yu metti wax ko waaw moom laa la bëgg indi rek xam nga. xam nga bu ñu demee ba dugg si point boobu rek doot man dootuma utiliser imam bi wala dootuma utiliser Bilal bi dootuma utiliser président bi ni ministre bi. ah d'accord je vais utiliser directement le nom. de la personne la la personne en tant que tel nit ki ngay gis. parce que c'est un respect entre nous comme euh, comme des musulmans du nekk cër si man tey. ma ma tudd ku mel ni imaam ñu ne saaga naa ko wala ma ne saaga naa ko du nekk cër parce que bu dul ngir moom moom moomu sax naa naa naa ko def ngir diine bi nga xam ne mooy boo ko tënk te ku nekk xam ne cëru imaam maanaam du cër nag boo xam ne cër bu ndaw la cër bu mag la si diine ji kon si occasion bi tamit ak respect bi ñu war a am si ñooñu du ñu permettre ñuy citer le nom d'un nit di wax imaam ba pare du citer le contraire pense que loolu du jaadu parce que moo jógee si léegi tisbaar maa ngi koy julli imam bi kon yow ki ngay saaga du nekk imam bi wala bilal bi en tant que tel mais la personne en tant que tel waaw xam nga xam nga xam nga Ousmane bu ñu waxantee dëgg rek te yàlla tax maanaam ñii gàmm ak man Ousmane si man taxawuma lekkuma junniy kër waaye taxaw naa junniy kër kon xàmmee na xam nga lu ma mënul comprendre man xam nga la laa mënul comprendre lu ma ko comprendre ba ker baa ma sàngoo suuf muy ku ma diriger man du ma am dirigeant xam nga lu tax du ma am dirigeant parce que xam naa ne nit ñi ay surga la ñuy bëgg te man du ma nekk surga kenn nag bañu ma am kilifa xam nga lu may bañ am dirigeant man kenn du ma dirigé du ma xaar mu dee ñu koy watat bi yóbbu sën ba man fu ma neex lay dem fu la neex ngay dem fu la neex lu la neex ngay wax mais euh, nee nga dofuloo nit dina dof te moom du xam ne dafa dof man rek maay benn dof bi nga xamante ne damaa dof te nangu ne damaa dof est-ce que mënuloo jàpp benn instant nga xas sa bopp def erreur boo xamante ne jàpp nga ni fi dof dëggantaan nga def parce que Bilal wax nga ko wax bu ko naqari si kanamu penc bi ñëpp di ko rey waa penc bi ñëpp di ko wax bu doy sax te yàgg nga ci. daaw aussi sang la police devant nous ñu ñëw couvrir euh, événement bi kan moo la ngemb lan moo la fital ba ngay sàgg autorité yi comme ça Ousmane kan ngemb ma du problème ngemb parce que utuma ngemb pour def le portal wala pour def la justice utuma ngemb loolu parce que j'ai compris te xam naa lu nekk degré lan la war a nekk wala man dafa am lu ma moomal suma bopp loo xam ne dama jàpp ne kenn du ma ko sécuriser maa koy sécuriser suma bopp may sécuriser sama bopp samay manifestation may sécuriser sama bopp sama jom sama ngor parce que foofu laa toll li nga tudd noonu tout di wax bilan bi ma koy définir yow yaa fa dugal bilaal yaa fa gis bilaal mais man gisuma fa bilaal

non say wax ne dafay defa dafay dépasser de telle sorte que ñu. waaw parce que boo defee lu dépasser ñu wax la lu dépassé. est-ce qu'il t'est arrivé une fois nga wax benn wax nga rëccu ko. non non non je l'ai jamais fait musuma am regret si lu may wax parce que lépp lu may wax dama koy wax consciemment du ma tux du ma naan sàngara même cigarette du ma tux yoo xam nga loolu. d'accord kon je fais consciemment li may def. li ngay def da nga koy def consciemment. Euh, ñu xas nag xuus si gannaaw bi ñu génnee si euh, loolu nga xamante ni euh, moom mooy lël bi. Euh, ñu dugg ci li nga xamante ne ni tey dëkk bi ni muy doxee baat kilifteef ndax da ngaa nangootul kilifteef kilifteef daf fay jóg wala démb ak tey différence bi lan moo xew. Ousmane je suis composé de deux ethnies man su ma bàyyi ba fa mu yem saraxule la su ma yaay ba fa mu yem lébu la ñaari xeet yooyu. dama jàpp ne lu nit gàtt gàtt xam-xam xam nga ni booy seet dëggu ak dëggal man nga ko jeex foofu man manuma ñàkk fayda Ousmane te manuma ñàkk kilifa parce que su ma bàyyi jàngal na ma ci bindu sëñ Babacar ni kilifa du mën a ñàkk si nit ba donte day dem ba si àll xuus ba fekk garab bu dëgër mu gàddu ko maanaam mu ko kott ko pour def ko kilifa kon ñun xam nañu ne suñu dund mënul ñàkk kilifa parce que dañoo am ay kilifa tënku nag si ay kilifa waaye yan kilifa bu fekkee nag dafa am yoo mën a teg loxo tegal loxo ma wax la parce que nag ñun kam xàmmee nañu kilifa ak ki ne fàng nag d'accord kon tey ñi nga xamante ne ni ñoom la ñu jàpp ñun suñuy kilifa yi su mel ni suñuy jaraaf yi suñuy dëj yi suñuy imaam yi suñuy yooyu ñi nga xamante ne ni ñun ñu si ñoom la ñoom la jox bopp ndax ñooñu dañ laa doyul tey du ma wax ne Ousmane doyuñu ma parce que c'est général waaye la majeure partie doyuñu ma te ñoom sax xam nañ ne doyuñu ma parce que doyuñu seen bopp xam nga ku jaaxaan di saw sawuloo kenn sa bopp ngay saw Ousmane damay am damay am gàcce parfois bu ma gisee à travers la télévision ñu figuré 95 pour cent wala 98 pour cent si ñu ñu mën a tuddee tey nos autorités mo xam coutume la mo xam politique te kenn koo ci jeex casier judiciaire bu vierge amul ñenn ñi dig wàccoon ak ñoom may leen benn stand ñenn ñi dig ak seen kaw dina poursuivre tey ñu figurer leen à travers la télévision ñu ne ñii ñooy représenter dëkk c'est une honte. mais yow yaa ñooñu yéen a àndoon am am na ñoo xam ne da ngaa soxor am na ñoo wax ñooy yow dañ laa yàq parce que. am na ku ne ma fekk ne fi ñu lay yàqee parce que dafa am benn kilifa boo xamante da nga ko dépassé woon mu def loo xamante ne nii da ngay saagaate da ngay mer rek parce que da ngay def ay affaires yoo xamante da ngay ànd ak ay nit yàlla dénk leen teraanga nga nga nga dem dispersé dispersé wu ak ñoom lim ñu sama kanam la xaw man ak yow depuis. bu la neexee bu la neexee nga lim. mais yàlla natoo ma ki ñaan parce que lu tax ma ki ñaan la gor la te sang bu tedd bi lañ ma tuddee fi mu gën a ñëpp sa xol la mais Ousmane ma teg loxo rek si point boobu ni la ba ker ba ma sàngoo suuf du ma nekk ku ñuy diriger Ousmane gaa ñi créé wuñu ay créé wuñu ay relève bu ñu la dëgg te yàlla xam nga lu ñuy créé ay surga parce que bëgguñu bu ëllëgee gis nga gaa yi ma wax la pour tënk li leen di neex mooy bu ñu nekkee yoof nga nekk fii si Almadi bu ñu la soxlaa oo la pour ngeen gisee dañuy am dañuy bëgg nga taxaw 30 minutes pour xaar tata bi boo amee tata bi dañuy bëgg tata bi daw tuuti paan nga wàcc dox ñàq boo yegsi si ñoom da nga war a da nga war a da nga war mel façon bu bu doy waar ñëw di leen expliquer procédure bi nga def pour mën a yegsi si ñoom loolu mooy seen mbégte est-ce que tey du euh, wàll boobu nga xamante ne ni moom nga bokk nga nekk ci dëkk bu nga xamante ne la nga bëgg imposer wu léegi euh, nekkuloo léegi 100 pour boobu souvent damay dégg ñu la ko wax parce que dafa am ay baat yu bari yoo xamante ne da nga ko yor si dëkk ba te am na ñoo xamante ne peut-être d'accord ñu ak yow si baat boobu est-ce que du li nga nekkul léegi 100 la parce que léeg-léeg da nga koy dégg. waaw certes mën na nekk mën na nekk loolu parce que loolu mën na nekk sa xel nangu na loolu waaye it euh, xam nga Ousmane àdduna képp ko am looy bañ rek sonn. képp ko am looy bañ sonn mën na mën nañu nekk si penc mi ñëpp di ñu way ñëpp di ñu bégge ñëpp di ñu bëgg xam nga lu tax parce que dañuy nekk ay naafeeq man bu ma gisee lu bleu dama naan c'est du bleu bu ma gisee lu ñuul dama naan c'est du noir te mosuma nekk figurant si benn organisation bu ma yàlla nattoo ma nekk si moo waral nag ñi nga xam ne tey dañuy bëgg comme ni ko gaa waa ji waxee woon kuy maanaam kuy moytuloo araam di nga bëri looy fande man bëgguma bokk si ñooñu ku moytu looy araam di nga bëri looy fante mu mel ni li ngay fante dafa bëri parce que am ñooñu jiite nañ te ba léegi jiiteeguloo da ngay dem ba da bàyyi si li nga nekk sax. Ousmane lan nga tuddee jiite. ñi nga nekkaloon maanaam tey jii nii euh, DG Laay mu ngi fii xam nga Saltigué Sana mu ngi fii euh, Jaraaf. fii DG Laay euh, Ablaye Thiaw. waaw waaw dafa la ñun ñoo nekk ndawoon di yee suñuy mboqataay. ak suñuy <laughs> suñuy wargaat suñuy kii ak yooyu. mais léegi macha allah mu ngi si almadi fi yor ay bureau xam nga. ñi xam nga ñooñu ñëpp nga àndoon ak ñoom après ànd au moins ñoom xam nga ñu ngi teg seen loxo ci dara te ñoom ñu ngi avancé si li ñu nekk est ce que ki ñaan boobu ñuy wax dëggantaan nekkul ci yow parce que nit mënuloo bañ ko la diriger ah? non non man kenn du ma diriger parce que yow daw ko la diriger moo tax nga jóge Japon ñëw Sénégal toog j' espère que boo nangool ko la diriger doo jóge Japon parce que fi rek mu ngi la nit bañ. Ousmane dégguloo li ma la wax bañu ma ku ma man bañu ma ku ma ilif ku ma diriger lay bañ parce que dama dama am droit yoo xam ne maa ko moom sëriñ bi du ma ko jox kilifa ku mu mën a doon du ma ko jox maa maa koy jox suma bopp parce que lu tax maa koy jox suma bopp may sentir loolu Ousmane dama ne yëg-yëgu fuy xesen si nit ba mu koy okk nga di ko yëg tollooguñu foofu te duñu fa toll nag yëg yëgu fi fasenti ni bañ du ko wok moom du ko yëg te du fa toll dafa wax sànq lu am solo gars yi dañuy bëgg nekk seen 4 wala téléphone ne la foo ne nga ne maa ngi yof ñu ne la ñëwal ñoom ñor seen 4 yow nee na nga paan dugg dugg njaga jaay nee na ñoom ñoom njaga jaay bi nga dugg bu ñu bëgg sax njaga jaay bi ñëw à l'heure comme daw mu gaaw ñëw non non dañuy bëgg njaga jaay bi paan am ay problème nga ñëw ñàkk yë sol yëre ba xotteeku xam ñu jox la am lu ngeen dégg ci waxtaan bi yéen ñëpp concentré wu ngeen question yi na daw am émission c'est un grand monsieur Ahmed beaucoup. jekk mais malheureusement ma dama ko <laughs> question. le grand monsieur maa Voilà, donc c'est avec euh, beaucoup d'attention là suivre ce, qui, cette intervention waaw donc man léegi dafa am lo xamantene que juste euh, à la lumière de man de ce que j'ai entendu jangat bi ma ci def aussi moy ça à en fait lu may gis moy ben rage buy génn ci yow ben frustration mu melni tay ji euh da ngay dund ci ben société bo xamantene que je ne sais pas ndax dañ la fa marginaliser wala dañ la dañ la fa def loo xamante ne que daf la métti ba mu jaral par exemple ngay nar a régler benn compte personnel ba euh, je vois comme si ma mënoon wax sax un lion un lion gaynde bu ñu gagne, un lion blessé xam nga qui a la soif de la vengeance quoi est-ce que réellement sama njort loolu la mooy sama première question euh, seconde question moy euh, tay bo nee ken du la diriger ken du la jiite foo ko ndax da nga bëgg a prôner pour l'anarchie bëgg da nga bëgg def sa bop ben anarchiste ou bien yow da nga gis que ne ñiy jiite aussi opuñ ñu compétence et que yow si yam critère nga basé aussi pour wax que ne yow tay ji ken mënu la jité bu fekkente ne par exemple da nga am ay critères yo xamante que da nga ko wara a aussi nga tégal ñuko ko bu fekkente ne si walum compétence la

bi si jiitu dafa si tënk rek dafa mel ni da nga wax ni da nga yëg si ñun ne dafa mel ni ay gaynde yu gaañu lañu maanaam dafa am certes lu ñu dund loo xam ne tey présentement si suñu diggante nit ñi dafa dafa dem ba mettre ñu en rage tout à fait si benn point rek laa koy tënk xam nga àdduna boo si nekkee nekk fi ak ay nit yalla boole leen ay maanaam ay ay ay ay ay mbir yu ngeen bokk nga am si ay gis-gis yuñ si amul te donte certes xam nañu ko je pense que lii gor mooy kooku même boo ko même boo ko soutenirul sax la ko ñaanal réussite parce que dëkk loolu dafay am solo parce que nekkul loo xam ne tey dañ koy xool man si teg loxo ne lii c'est individuel lépp bépp activité bu nu nekk di si yëngatu rek des milliers de personnes dañ siy gis seen bopp te ñun xam nañu ñoom xam nañu mais le problème c'est tout simplement la jalousie ba parfois tey mu ñuy muy dem sax ba ay nit di porter ay engagement di di di wax si suñu présence fu ñu nekkul si si forme wala ay fonds yoo xam ne tey du correspondre sa ak li ñu tax a jóg wala li ñu nag loolu parfois dafay feeñ si suñu communication xëy na certes c'est une erreur si cëddul waaye lu ñuy yëg la te li ñuy yëg bokkul ak li ñuy teg ñun dañuy yëg di wax te li ñuy yëg di ko wax dafay correspondre ak li ñuy dund parce que amuñu ñaari forme amuñu ñaari façon benn kanam bi lañu yor dañu jàpp ne mënuñu si mooy yàlla di si jaamu yàlla moo waral parfois wax ji di tëgër wala mu natti waaye yàlla seede na ne bu ñu ko génnee suñuy ko génnee mat na si ñun beneen question bi muy affaire diriger euh, je pense que tu n'as pas compris parce que si nous, euh, mot euh, président bi le ministre bi le maire bi fi ma le président Macky Sall suis président ma le maire ministre de Yoff Abdoulaye maire. en parlant de maire <laughs> euh, vous avez des divergences dans un pays il faut que je gouverne, moo waral sax yàlla bu ko neexoon catholique do am yéeféer do am wala boo fi amee doo fi naan kaasu ndox ataaya yàlla la neex mu créé parti yooyu yëpp yàlla moo jëkk créé sa dafa war top topp No ginnaaw est ce que du yaa war a topp sa ginnaaw non du problème kuy topp moromam c' est à dire Ousmane bu gis-gis yëpp nekkoon benn benn arme du jar bul fàtte ne arme bi nga defar moom nga ma jaay ma rey si Moussa bu gis-gis yi nekkoon benn xolal arme du jàpp. mais accepté loolu loolu parce que daaw li mu defal Dada ak li mu la defal da nga taxaw révolté wu. non may moom ma prononcé si li nga xam ne moom la sëriñ bi wax léegi mu jëm ci affaire dirigeant xam nga diriger nit li tax ñu di ko bañ parce que dootul am dootul am dootul am parti maanaam dootul am lu muy muy wax dootul am lu muy bañ dootul am lu mu koy laaj moom il pour les applications. man je suis pas pour loolu. mais eh, tu dois être pour parce que. yow yow ànd nga ak Abdoulaye Diouf Sarr indi ko sama kër ñu nekk liggéeyi benn affaire kan du sotti nga nga nga bàyyi. non dama ne dama ne man am laa wax man bu ñu demoon ba war a dugg àjjana ma gis ne forme bi ñu war a duggee correspondre ak sama. rek ma bàyyi la est ce que fi mu toll est ce que du loolu moom la ñu a dund tey. non non non pas du tout Ousmane lu jamono tëradi tëradi tëradi dama koy wax di ko répété lu jamono tëradi tëradi dina am ñuy jiite jàkka yi am ñuy jiite di mais est ce que doo gën a tardé yow kat kat bi ngay ñëw njaga jaay nga ñëw est ce que gars yi nga àndaloon yëpp ñu ngi wax ay kat kat non déggoo je le préfère mieux Ousmane bañ a añ bañ a reer bañ a ndékki moo ma gën a lekk loo xam ne bu ëllëgee may jàkkaarloo nit ki mu may empêché ma war dem wala ma war je préfère mourir de faim que ma lekk ginaar yoo xam ne dox sama diggante sama dëkk parce que sama kàddu rek laa Ousmane aw leneen aw ma oto kër aw xaalis aw dara xam nga lu ma am suma kàddu dama jàpp ne saa yu ma ko ñàkkee amatuma dara. question. Euh, dama am bëggoon laaj ñu tax nga am fit taxaw di wax ak gars di leen saaga dafa am lu dox sa gannaaw di la dégg wala ñi nga saaga da nga am da nga ñoom maas ak ñoom am defandoo foondoo wala soit da nga ñëw gis leen ñu def na ko ci du noonu. sa xel dalu loolu ba taxaw nga am ba taxaw nit taxaw nga taxaw di ko joxañ di ko dakkal wala nga di ko wax loo xam ne nekkut deuxième bi li tax ngay taxaw na léegi man dinaa ànd ak nit liggéey moom moom nga dem ba ci biir rocc ko di révolté wu la moo a révolte boobu ak la moo tax xadar boobu di génn si yow waaw man sëñ Saliou man for naa si wu bay ne dafa laal laalaake dafa tooñ wàll dafa laal kum warul laal

ma dof je suis loin d'être un fou. si li nga yaakaar yow. te j'ai compris. mais man am na nga mais dama wax ni. man da nga may euh, bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu jël. bu ñu jël affaire bi rek teg ko foofu. parce que loolu déjà nekkul képp koo dégg ne am naa ak moom problème moo xam su lu mu mën a doon wala fu mu mën a yegg rek c'est parce que kooku dañu war a am problème mais tam nekkul forme. wala fond boy utiliser rek pour protéger sa bop wala am lu la dooleel wala am si lo wéeru ba tax instant bu nek nga def lo xam waro ko def wala nga wax lo xam waro ko kuma ku ma xam sax xam ne naturellement nekkuma genre boobu nekkuma genre bobu waye nak man lima ma moomal sama bopp laa man am man dina ko garder sama bop ba luma fekk ma xam ne mo moo ko fekk je pense que loolu moy première question bi jëm ci affaire u saaga yi loolu duma ci si ci ma si du parce que defe naa ne ñu nit ñi xam nañu man de tamit xam naa en tout cas daal képp koo xam ne man am attaque nga ma man dama lay man loolu moom si man la bokk. j'espère que beneen question bi bal euh, ma beneen question Saliou bi. Euh, Saliou beneen question bi mooy comme lii Tidiane po posé rek lan la yaakaar quoi dafa am lu mu yaakaar bay def loolu. waaw boobu laa tontu léegi des na beneen. deuxième question mooy pourquoi boo ànd ak nit ba demul dara desul dara. waaw waaw xam nga. loolu moo il paraît que xam nga accident yi am si àdduna bi yëpp signalé gauche jàdd droite bee ko indi. Hmm? signalé gauche jàdd droite bi yi majeur accidenté yi am si àdduna bi tey hmm. Ousmane man damay topp nit te xam nga nu may toppee nit. dafay bokk ci samay raison man damay bàyyi xel li nga xam ne moo ñu boole Ousmane bu fekkee ma ak yow dañu ànd ñu def plante bi nga roose ma roose ñu ji di roose di roose ba nit ñi fekk ñu fi ma taxaw ñëpp taxaw nga bëgg a wax ne si gént dañ la wan garab gi rek nga xëy mu nekk fi dama lay wax ne la da ngay fen ñun ñaar a fi fi jiwandoo di ko roose na bu mu nekk nii.

parce que loolu yëpp nekkoon na fi te lii nekk ko fi woon li fi nekk dañ ko fi def gars dañuy fàtte na dañ leen valoriser man nag boo fàttee ne dama dañ la valoriser dama lay dévaloriser xamal la ne doob sax parce que loolay dañ man loolu laa gëm man nag ba ker baamaa dee man am concept boobu dama si jóg concept boobu du si jóg ça fait 35 ans que je l'ai connu euh, ba léegi jógul si concept boobu si la mës nekk

jot ki comment il s'appelle encore Jagal Fall dañ ma doon wax ni ma dafa am yoo xam ne yàlla daf ñu ko sant bu ñu neexee dañ ko war a def bu ñu naxaree dañu ko war a def am yoo xam ne ñun ñoo ko war a ñoo koy def suñu volonté bu ñu ko defee mu gën waaye bu ñu ko deful yàlla duñ si bindal bàkkaar mu bokk si yi nga xam ne lu mel ni ay julli ay wor et cetera yooyu da ko war a def en tant musulman mais tey lu mel ni comme concept lël bii bu ma ko deful kenn tegu ma ko mën def kon bu ma def dama koy def un cœur ouvert parce que la ma siy xaar xaaruma ko si benn Ousmane wala si benn Moussa waaye dama koy xaar si yàlla parce que huit ans maa ngi si nekk li ma si dund see obstacle tey mu ëpp fuuf te yow xam nga si yenn mais terewul damay jàpp rek ndax ba ma dugg ña ma jëm si liggéey boobu dem nañ matoon nañ quinze personnes mais dem nañ ba bi ñu waree xëy def opération bi j'étais le seul ump la ñëpp dañu bàyyi li tax ñu bàyyi ñii seen wéyjur ragalloo nañ leen ñii ragal ragalloo nañ leen ne leen lii ak lii ak lii bu ngeen si duggee lii mën na leen si fekk ba ñëpp bàyyi keroog au passage may nuyu sama sëriñ Mame Mbaye Laye keraa moom laa dese woon comme dernier pion bu ma demee seeti ko waxtaan moom mu fital ma guddi ko même laa amoon yëg-yëgu ne man sax est ce que du ñëw jël moom si zone dagg kooy xale yi jongal leen yaa ngi ma loolu jàll naa man amatuma lu may ragal si loolu waaye dama bëgg ñu xam ni li may def ak respect bi ma ko jox ak série bi ma ko jox mooy waral boo may xool si moment yi sa boo koy xool si moment yooyu doo ko xam ne moo tax sànq bi nga xamante ne nii euh, Moussa wax na ne est-ce que moom la euh, ma xam ne euh, Moussa dafa dégg dëggantaan parce que ñun daaw dem nañ ba jàkkaarloo ak moom. ñu ko parce que boobu ñu ngi waroon a dugal euh, njulli yi police ñëw dox diggante ak njulli yi mun leen dox leen sama diggante ak njulli yi jaar fu bon da ngeen di faatu léegi am te trop mystique da ngay suul ay niw di suul ay niw. Ousmane di ëlbati boppa yi. wala cosaan ak aada bi dama wax rek taxawal rek boppa bi tegu. man je suis né je suis xala je suis né composé de deux ethnies man ñaari ethnie yi ma bokk su ma bàyyi nee naa la saraxule piir la su ma yaay li mu la. Ousmane dama am cër te Ousmane bari na lu gaay di defal mën naa ko defal ma bopp man yaa ma dégg beneen bi mooy bari na ku ma ñu ma sax dama di tegginal rek mais Ousmane bul fàtte dama am cër te damay deewaale gaay yi bu baax a baax a baax nag dama am cër rek billahi wallahi taala koor gi ma nekk nii dama am bu baax euh, nekkal ak juróom. bu ñu fàtte su la waxee dafa am ak cër euh, war nga ko gëm 2008 la ASC bi gëj a final da da nga demoon jël euh, affaire bi en main fekk gëjoon nañu final nga ne jël leen jox leen ma ko ma yóbbu leen nga jël affaire bi yóbbu leen nga sulli niw yi nga dem si armée li sulli niw yi dëppal ñi seeni bopp yóbbu ko droit

déglu ma dama ni. non est-ce que li ma wax ma waaxu dama ni. non non di à dire dama ni armée li dañu fa am ay mbokk. yi ñu fa denc émission amul taw tey. émission ëlbati bopp ëlbati kii ëlbati kaat. non cër si képp ku fa am. ku mu def non est-ce que man dama sos. ah non déglul dama ne. non da nga may wax rek ne ma da nga sos wala sosoo affaire baa ngi nii caméra baa ngi nii yaa ngi nii toog. non dama ni. non yaa ngi si émission amul tabu da nga dem woon boo ma invité si émission amul tabu lenn rek. waaw mais dama ni dama ni man jàmbaar xale respect te du ma dellu moo tax man yow xam nga ne. yow xam léegi ngi baa ngi nii. non ni yaa ngi dama ni waaw man. waaw lépp lu ma mos a wax jigéen def naa man. waaw te très mystique dama jàpp ne. dama jàpp ne trop mystique wax moo tax li ngay saaga ah, nit ñi ak li ngay def. non non non du mystique du mystique du mystique du dara Ousmane. du yow toogax yow sax wóoru euh, c'est-à-dire yow euh, pour la respect bi ñu war a am tey si ñi nga xam ne ñoo fi jógee Ousmane boobu ba léegi ñu ngi dégg problème yi xew si armée li si néew yi si julli beeg suul beeg defaraat beeg laxasaat beeg yu mel noonu te dañu war a am respect bu mag si ñoom parce que nag ñooñu fa dëkk ñëpp fii ñu nekkoon te ala kulli alim ñun fii ñu nekk ñu fi jóge tëdd foofu ñu leen di ñaanal yàlla xare leen ak jërë ñun ñëpp si barke nañ tëdd am na jomb teg loolu suñu diggante ñoom parce que cër la hmm? du ma rey dekkal kon gis Ousmane daf may sax dugal si affaire football ci mu toll. waaw ndeysaan football ñëwal si football waaw. parce que j'ai vécu une histoire bokk na si li ma gën a metti suma dund parce que je me suis benn année si nawetaan ñu jox may responsabilité ma créé yow xam nga ne man gagneur la yàlla dimbalee na ma loolu nag Ousmane li may perte bariwul de. mais jarul ngay sulli ay ñi wax di suul ak yooyu. li may perte bariwul de. li may perte bariwul. bi ma ñëwee tamit engagement ba ñu ma jox dama jël engagement yàlla defal ma ndam loolu. ma jaar si fu nekk dund si lu nekk daj si lu nekk. waaye man que lay doxe yow es nga Japon télévision japonaise tu ah, ak ay matériels qui ne des millions lay jar mon nom sans aucun sou. Hmm, hein? sans aucun sans aucun une quinzaine de japonais. Hmm. avec des matériels très professionnels. pour tout une journée. sans aucun cent franc. joxuma ko ab dërëm. yow gépp na tedd na. yaakaar ne ay milliards ma indil ma indil la fa ay mbër. indil la fa ay simbakat. indil la fa ay kankurang indil la fa ay ndawraat bi. indil la fa lépp sans loolu dana a teel sedd na ma ay nit. parce que man la woon waaw am naa kersak sax. taxaw ak ñooñu di leen mën a laaj en plus jumaa la woon si troisième jour tabaski nit ñi jàpp lool. waaw Ousmane keroog na ma bàyyee sama julli. di taw di waxu di dugg di génn moins de 24 heures pour réaliser loolu ba mu réaliser wu. est-ce que ña ma doon romb di dem ak di ñëw ñooñu mën nañoo gëm ne Ameth mii lii muy dox nii yëpp c'est gratuit. est-ce que mën nañ ko gëm mais yow xam nga man xam naa c'est gratuit parce que ba tey ki may wax ak yow nii tubaab yëkkatiwul 100 francs jox ma yow yëkkatiwoo 100 francs jox ma. ab dërëm am na mais esprit boobu est-ce que c'est facile à faire comprendre les gens que loolu mooy dëgg. nit ñi jàpp nañ ne tey diggante robinet bi ak fii ma toog sax boo ko ñëwaat am na un intérêt bu si loolu. kon def te yàlla tax dafa war a am dafa war a am dafa amna na c' est c' est mon statut Ousmane def ta yàlla tax man je le fais ah te dàquma ne am na ñu koy def am na ñu koy def jusqu' à tey fii ñu toog am na ñuy def te yàlla rek tax am na ñuy def nag te leneen tax am ñoo xam ne <laughs> li ñuy def yëpp dañ si am dañ si am lu ñuy xaar. am boo waxee ma si dara boo waxee da ngay def te yàlla rek tax. dëgg la man li ngay wax ni je suis témoin tubaab yooyu man maa leen jëlee woon Japon andi leen fii. waaw léegi même ma àggali ma jël samay moyens ma Ousmane xam nga ban âge laa commencé yeewal su ma bàyyi xaram Tabaski xam nga ban âge la xar mi ma jëkk a yeewal su bàyyi gàtt gerte ba indi ko ñafe ba jëndal ko suma bopp ëppul xobu garab bi keroog bi ma ñëwee nga bàyyi. xar mii de laa xeeb lool waaye moom laa am jox la il a pleuré nekk xale bu ndaw moom dama doon dem géej di teeru gaal yi di taxale ba jënd xar at moom à bas âge la di tabaski Ousmane est-ce que xam nga ne at mi ma lay wax ni tabaski bi parce que j'avais cent mille ma jël ma dem regroupement dégg ak Diop maa ngi koy nuyu passage ma dégg Diop suñu benn jour. ak coach bi Pape Samba Doy Elvis mooy root équipe bi mu wax benn wax bu am solo mu ne fi mu nekk ni joueurs yi dañu sonn dañu saturé parce que day toll foo xam ne un footballeur foog ñu soulager ko génne ko si terrain bi dugal ko si beneen terrain pour que mu mën a ñëwaat adopté wu ma ne loolu ça fait partie de mon rôle parce que en tant que chargé de l' organisation de la Milan ma au dirigeant yi

mais je vais préparer Je vais samay des poissons, samay poisson keroog lu jour yi commande ma ko j'ai tout acheté Le football ak Liberté 4 ñu dóor ñu ñu ne dama sacrifier équipe parce que xaalis boobu ma investir dans ce jour yi Liberté 4 ñoo jox pour que ma sacrifier équipe Je vais toggal des poissons, ginaar bananes ay poisson ay banane et tout loolu moo sacrifier équipe waral naa perte te ba fii ma toog di wax ak yow Ousmane boo gaaree woon oto fii si biti def si un milliard dama dugal ko Liberté 4 jël oto bi ak un milliard ma ñàkk ko. billaahi wallaahi taala xamul fan la Liberté. manuma naa fii la Liberté 4 commencé ak fii la yem léegi nag gis nga loolu ba fii ma toog di wax ak yow ni dafa nekk si ma xol parce que mënuma mënula dañ kon j'ai vécu cette histoire te loolu xam nga nañ ñoo ko créé ñi nga xam ne manuñu. ndax man yàlla ma dimbali Ousmane yow xam nga loolu lu ma lu ma bëgg a def ah lu ma bëggul def mais lu ma bëgg a def yàlla defal ma si ndam parce que noonu laay doxee parce que je vais jamais à demi bi ma gën a nekk xale di sawlal sax mu masaan a saw laa bi une semaine kenn si tëdd day loolu waaw kay dañ koy weer une semaine di defantu ma suma defantu. nga di def lay def. waaw kay c'est très important pour nga xam question. sëñ bi su ma la déggee dafay mel ni yow damay dégg say wax ne yow looy def dëgg moo koy lal yow dëgg daal moom nga bëgg di imposer nit ñi loo séq nit daal yow si dëgg nga ko bëgg di teg ba pare ma laaj la yow saaga yi ngay saaga nit ñi est-ce que yow li nga xamante ba ni moom nga bëgg a faj saaga moo koy faj wala am na leneen loo xamante ba nii moo koy faj lu leneen lu dul saaga daal loolu laa lay laaj. waaw bonjour sëñ bi maa lay nuyu ma Binta Jaxate laa tudd. waaw dama lay laaj ndax yow est-ce que li ngay def suuraale nga ci say doom ndax tey jii yow nee nga kenn du la diriger yow da ngay saagaate ndax tey jii ñaan nga yàlla nga am say doom ñu toolu benn niveau nga bëgg leen a diriger ni leen defal leen lii wala ñu toog ni la papa defuma wala nga bëgg leen a ñu bañ ñu ne doo doo ñu diriger ndax moom moo ñu wala ngay wax ñu saaga la ndax imagine nga yow yooyu ngay def ñooñu ëllëg mu ñëw tourner sa kaw tourner euh, këpp ci say doom ndax yow imagine nga loolu doo ak doom nu neexee ci xol say doom lutu ñu dina def lool ñu ne papa yow doo diriger ñu bañ taxaw ni la doo diriger wala ñu saaga la yow. Euh, awa si sa question euh, di mooy sa Fat Bintou euh, lu jëm si njabootam doomam xam naa benn doomam bo xamantene ne ni moom yarul moom yaru doom bi dafa ragal mun naa dafa ragal doom bi sax quoi parce que xalé bi moy diriger xalé bi lu mu wax mom loolu la xalé bu ndaw xolal xale bi wax rek day wax ne waaw xale bi mais ñu mag ñi moom moom famille yi comme tàng boobu ngay wax noonu buñ ko séenee rek dañuy daw moom pour nekk ak moom une de temps loolu amul mais xale bu ndaw bi moom moo ko domine saaba saaba da nga ragal soxna si maa ngi lay sant bu baax si question yooyu c'est am na solo bi may commencé rek mooy bi ma waxoon sànq rek dafa mel ni yéen da ngeen fi nekk waaye nekk fi quoi dama xamul ndax koor bi moo leen jàpp wala da ngeen koy déggee neneen j'ai beaucoup insisté si point boobu ni leen du ma dof réewuma. yow da nga jàpp ne doo dof. même docteur doucement man may dof bi nangu ne damaa dof. j'ai beaucoup insisté sur ce point ni leen dofuma dina jàpp ma et j'ai compris lenn lu nekk lan mooy procédure. kon du ma am droit bu may permettre may saaga di saga di saga di saga, kan lay saga? ak lu tax may saga di saga di saga di saga di saga. Euh, c' est vrai c' est juste pour vous dire man am saaga ma kenn. da ngay saaga Andiaye. pour être clair ah. da ngay saaga El Hadj Malick. saaga ma kenn ah. da ngay saagaate. c' est à dire si ñun su jeunesse si ñi nga xam ne tey ñoom la ñu yàlla partager suñu life loolu kenn ku nekk si ñun am na ko koo xam ne tey am na yu muy def ak moom am na yu muy séq ak moom. mais tey si forme ak façon il faut que ñu koy ñu koy bàyyi xel xam nga tey à travers cette télévision waa ji toog ne da ngay saaga El Hadj Malick bul ma mettre à mal ak jullit yi bul ma mettre à mal ak tijaan yi c'est-à-dire euh, c'est une façon de communiquer qui est El Hadj Malick El Hadj Malick mooy ki nga xam ne tey moom mu représenté lu bëri si Sénégal si wàllu tarixa tijaan kon respect boobu tey nous war nañ à travers trône, trône, waxuma monde, la personne mais nous ku nous ko nous kon nous jaadu nous nous en tant que Ousmane mu jàkkaarloog yow il idole numéro un. na na na yow fi mu Non, non non non mais non Diouf je l'aime beaucoup. xam idole moi, non non ce n'est pas pour xam nga El dama ko naw xam guerre bu am et là, vraiment ma ko tout dara hein. je ne sais mosuma mosuma je gis nii Ni, ni. à travers la télévision mosuñu gisante ni je n'ai rien contre lui hein ma may Je ne suis pas bu ma yoon daboon Je ne bu pas mais xam nga lan train naw si mom hein xam nga ala ala. sa façon Macky Sall sama xarit la. Hein? la sa façon hein? parce que même bu ak Moussa un ak Moussa ak Moussa ba Moussa def na taxaw def bu baax fay taxaw mu sédalo té loolu dafa bokk si ay ay jikko ay jikko yu baax xam nga lu comprendre nit ñi jël ben nit rek bonal ko ci lepp façon mais nak nit donte dafa bon éternellement am na seconde ça bu muy def lu baax nak donte arrosé garab gi la. je pense que man lolu la nawé El Diouf kon si occasion bi permettre nga ma may invité sénégalais hein ah à travers tey seen site internet bi hein nañu def ay choix député comme El Diouf parce que dañuy gis ne il représente toujours le peuple te Ousmane am na lu ma naqari trop te bis bu nekk damay déglu la maam Abdou waxone bay da baax yàlla yàlla yokk ay leeram ñi ñuy fal nañ leen di seetaan Ousmane man dama jàpp ne xas la sax si tay si suñu suñuy suñuy ndaje maanaam ñuy tànn ay nit ñoo xam ne amuñu benn compétence di leen mettre à la place yoo xam ne dañuy représenter askan wi yëpp benn kàddu bu wala benn signature bu ñu joxe sànq askan wépp loolu war nañ ko set te député yi dañu war a xam ñoom foofu ñu nekk muy ensemble bu amee doole lépp am doole waaye bu nasaxee lépp nasax kon yan façon député la ñu war a teg foofu te Ousmane ñun dañu war a defaat taxaw seetlu si ñi ñuy tuddee tey ay homme d'état ak ñi ñu tuddee tey ay homme politique Ousmane am na différence bu mag. Mhm. un homme d'état dafa jaboote un homme politique dafa limité un homme politique sama soxna sama kër sama jabar sama doom la mais un homme sa façon. mooy li sax moo koy gën a ñor li si biir kon nañu nañu nañuy xoolaat loolu te Ousmane ñi ngi jëm si ay législatif war a tànn ay député yoo xam ne tey ñoo ñu war a représenté pour cinq ans Ousmane tey député bu taxaw wax rek nga xam fi muy défendre loolu xas la pour le Sénégal député yi nañu xam ne seen mbubba yooyu ñu sol à partir bu ñu leen jëlee dénk jox leen ay responsabilités yóbbu leen assemblée nañ xam ne waratuñ fa taxawal kenn ku dul peuple parce que man li nga xam ne moom may naxari te aw ma tey accès bu ma permettre ma yegg si président wala ma yegg si côté yoo xam ne tey moo foofu laa ko mun a waxee ba ñu mën ko dégg je pense que ñoom ñoo war a nekk suñu làmmi comme naka rappeur bi doon waxee ñoom ñoo ñoo je la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche kon loolu war nañ ko xam mais bu fekkee xamuñu ko ba ñu taxaw si position boo xam ne tey ñoom lañu fa yebaloon pour ñu dem xeexal ñu dem fa taxaw di àtte xeex kon xas nga si ñoom ñàkk jom lay nekk si ñoom nañu delluwaat suñu bopp en tant que citoyen ñu xool bu baax yan façon personne la ñu war a fal di leen dénk ay responsabilité toujours maa ngi si esprit de dirigeant du dirige esprit de dirigeant boobu ñu am mu mel ni comprendre leen ko esprit boobu c'est une mauvaise esprit parce que ki nga xam ne da nga jàpp ne yaa koy diriger yow soxla woo xam xiifam soxla woo xam maram soxla woo xam raflem soxla woo xam esprit am soxla woo xam lu ko neex nii lu ko naqari soxla woo sax même mu contribuer si li nga xam ne moom lañ tuddee le social wala le développement lu dul benn application rek nga koy dénk kaa ñu dem kaa ñu ñibbi kaa ñu toog kaa ñu taxaw waxal bàyyil joxel loolu dama wax ni képp koy gor bañ ko man ba ker baama dee du ma nangu dirigeant dinaa nangu ku ma yilif parce que damay yilifaate dama am soxna ay doom nekk seen responsabilité mais tey du forme boo xam ne dafay dafay taxaw si ne suma doom day taxaw ne ma doom ma diriger du ma diriger doom pourquoi may diriger doom diriger diriger doom mënu la weesu tey man nekk ci safaan di fa diriger di fa yóbbu samay doom diriger do diriger diriger mënu la weesu tey ma nekk ci safaan di yóbbu sama jabar di ko fa dugal diriger ba tey mënu la nekk mënu la ñàkk nekk nga am sa gel yàlla miina la laak moom fu la neex nga watat ko tëral ko fa sëyeen moom wala lu la neex nga def ko loolu yëpp ay système mu diriger la mais bu fekkee ku nekk am na cër si kàddoom ku nekk am na cër si boppam je pense que loolu day mën a ñàkk kon yeen bu fekkee yéen da ngeen bëgg a nekk ñu ñuy diriger nekk leen ko mais man bakar ker baa ma dee du ma nekk ku ñuy diriger. am bu ñuy yëlif nag dinaa ko nekk. bakar ker booy dee doo nekk ku ñuy diriger mu mel ni doxalee ni si jàkk yi doxalee ni si sàppa yi ni ñuy doxalee si pénc mi oustaz yi micro même micro bi ñuy partagé bi nekk festival salam moom moo nekk si moom la Youssou Ndour di waye ri riigu riigu. Ousmane man sama yoon nekkul ci festival bi salaam parce que fii ñu nekk xëti xel ba. màkk ba xëti xëy la amul festival diine amul festival buñ ñu nax donc je suis pas pour loolu am naa fa ñu may bëggee ku mel ni Ndiogo Afia ku nekk xam na ma ak moom sama réel partenaire la lu mu nekk ma nekk si festival amul jeexital lan mooy festival diine amul festival amul la laam jàng jëfe li la yàlla tere li la yàlla santaane Ousmane loolu warul warul porter sa nom war a tudd mbapat nekk dafa dem pour bàkku ji. c'est une concurrence c'est ku nekk dafa dem pour bàkku ji sëriñ si ñooy mbër yi war a bëri loolu lay définir Ousmane dafa am ne dañ ko jéem a comprendre dañ ko war a comprendre. waaw ah, li bu ñu demee tey ba créer la mot marabout marabout on l'écrit avec M A R O T U e. T la xam nga ne lañ tuddee marabout.

jëmale ko tey si sketch yi am si weer wi muy koor gi mën nañu wax ne ñoom ñi koy wax ñoom ñoo jëkk a juum Ousmane ñaata ustaas ñooy jàkkaarloo ak télévision bi nga jàkkaarloo ak ñoom ñu waaraate waaraate waaraate waaraate waaraate ba à un instant ñu ne nañ dem publicité teg benn Wally Seck ñu naan riigu riigu riigu riigu riigu ñu ne si jàkk parce que ñu ngi si salle bi toog ñaata ustaas ñooy waaraate ba si biir ñu dog waaraate bi publicité lu neexul yàlla bu subaa ñoom lañ leen di fay te dañuy bu ñu fàtte ni li yàlla da li yàlla araamalee sib jullit mu naan sàngara di ko jaay wala muy dawal oto ba wala mu noonu la araamalee sib jullit façon liggéey bu nekk nga liggéey ko. kon yow leen di joxoñ baaraam tuuma. dama moo leen di fayam. du ma teg TFM baaraam tuuma du ma wax kenn dama wax ni képp ku nekk si sens boobu yaa ngi si biir. parce que nag bu ñu fàtte ne ordre yi nga xam ne tey moom la ñuy partagé yàlla dafa wax ne jullit bu nekk. lii la am droit liggéey lii amul droit liggéey ko ngir la nga xam ne moom ngay wut da ko war a sellal ngir say njaboot da nga koy jox mu mën a sell si ñoom te Ousmane xanaa xamoon ne lépp lu araam boo ko dugalee si biiru nit boo léegi di nga ko layoo moom est-ce que loolu responsabilité la. kon kon boobu ñuy wax naan est-ce que ci nii yëpp li ñu war a jëkk def taxaw lu mooy ñun ñi nga xam ne ñun la ñu dénk voie ñu war a wax est-ce que fa ñu toog di wax c'est logique ou bien c'est pas ndax fa ñuy waxee war nañ koo waxee ndax la ñuy wax war nañ koo wax. kay du nit kii di def rek moom ngay nekk di wax. waaye mais Ousmane sa bopp ba xam. est-ce que est xam nga ne tey ñun jullit yi jàkk ji ñuy jullee lu fa manqué jullit a ko fa jëlee est-ce que xam nga ne perturbation ba fa je mbalit ma fa nek fa tek man ne dégg benn coow bo dama genn acte ba ñu naan Jean sa ils sont très éduqués. voilà waaw légui bu forme de tay ñun nañu warona mel ño sàggan wala ba xeyna dañ ba ñu ñu mu ñaari ñu kon defe naa ñun ñoo war a dellu si suñu bopp ñu xoolaat ñun ñooy ñam. macha allah ñun ñoo war a dellu si suñu bopp xoolaat ñun ñooy nan waaye nag ma fàttali ko rek la ma waxoon ndaw sa ba mu waxee votre religion les gens indi ay critiques si nit ñi ma ne ko dellu si Saint Coran ba. boo demee si alxuraan rek la mu la wax rek loolu la alxuraan ba set na sell na waaye nag am na ñooy doxal beneen doxalin boo xamante ne ni bokkul ak la nekk ci alxuraan bi donc ñooñu nañu doxalin mën ñu nañu mbubaloo jullit fekk sax du ñu ay jullit donc kooku moom day nekk beneen affaire boo xam ne. mu am beneen question defe naa Saliou bu posé woon na ko bu si mënee dellu si waat rek parce que question yi dafa xaw a ñëw. sa njaboot sa njaboot. waaw waaw waaw waaw boobu jàlloon naa si ah non non waxuma si yow yaa si wax waxuma si yow yaa la saaba ni xala ma fekk mooy fóotal boppam yàlla dogal na boppam xoola mooy fóot mooy passé mu ngi ni mooy togg gis si vidéo yi xadara am naa soxla su baax ñaari bant la ma yàlla dénk kenn ka jigéen ak kenn ku góor te je je peux même dire ñoom sax sama tour de ñuy annoncé dañuy dañu amet directement amoo problème ak soxna amoo problème ak doom loolu moom xam naa si dara defe naa Moussa mi ak Bamba mi yàllu nañ sama kër xam ñëpp gis nañ sa kër foog ñu di bëri non mooy li ma lay wax rek c'est-à-dire moment bi ma waree défendre man li ma war a défendre dama koy défendre à ma façon de même que suma biir kër man naa tëdd fii nga def lu ne parce que man dama dafa am lu ma jàng maanaam man du ma wax te wax jotul du ma jëf te jëf jotul bu yaboo nga kabine sama kaw mais tant que pare moom pour wax si loolu du ma wax parce que aw ma habitude di wax di wax di wax di wax moo tax bu rek dootuma si dellu noonu laay dunde d' habitude mais aw ma problème mu doom di ma gis di tiit aw problème soxna di ma gis di tiit waaye it ku responsable laa ku yor sama soxna laa man waaye nag koo xam ne tamit bëggul ku ko yab laa moo tax sax moom may moytu xale yi système yi moytu parce que dafa am man mu ma bëgg a dunde te da ngay gis plusieurs fois ne soxna yi tey yi ngeen baal ma forme boobu wala façon boobu dafa mel ni luy dàqu te man dama dama damay sentir toujours si sama grandeur la man ba ker baa may sàngoo suuf sama jabar dafa war a nekk samay digal ñii nag classe gi parfois dañuy bëgg maanaam nga nekk seen i seen i ndigal te man mënuma loolu ah moo tax même je l'évite dafa am yoo xam ne nag góor bu ko pertee si këram lu mu yaakaar ne deseeti na fa amu ko fi te gis nga gars yi dañuy juum li tax ñuy juum dañu jàpp ne le dernier rendez-vous de d' être d' être homme mooy ab jógal te loolu nekkul le dernier rendez-vous. jógal mooy jógal mooy maanaam góor xoolal góor loolu moo si mujj sax booy xool xool xam nga li la góor moo loolu sax moo si mujj ah mais dafa am yu jiitu yooyu gën ko gën ko gën ko am importance.

te yàlla rek tax. donc yàlla sa bopp man man laay dundee. mu man gis nga. xala toujours ma wax ko gars yi di rey man xala bu yaboo nga nekk indo devant mes yeux mais su ma sentiree ngay def yi fi dof rek man sax barab samay cër sax man laa ko yare man joruma sax cër yoo xam ne dama la naan toogal fii nga dem fële man gis nga. lu ma yëg mu yëg te lu ma yëgul du ko yëg. mooy maanaam. te loolu mooy logique de bu fekkee ne bu ñu la tegalee. Euh, il faut être sérieux dans ce monde. ay parce que def yëpp ay tappale la. voilà man nag sama gis-gis certes ak seen i gis day uute ba ker baa ñoo sàngoo suuf. parce que man nee naa dama am toujours loo xam ne dama yëg ne maa ko moom muy droit a la man li ma bëgg wax dara dox sama diggante ak ma wax te dinaa ko wax ba mooy sàngoo suuf parce que nag. je vis toujours pour lekk jax ma ah, donc euh, émission euh, amul Tabou, moo ko may mu ñàkk a tabu li nga ni euh, li émission concept émission amul Tabou. là. donc mu ngi dans ce concept émission émission bi donc man mun naa témoigner lu bëri hein. vie de famille bi vraiment masse quoi xam nga tranquille amul amul ben problème certes nag am na ñoo xamante ko au sein de la famille da nga ñemee njaboot am kër gi xam nga paa bi bi mu génnee àdduna balaa muy génne àdduna bi muy dund ba léegi njaboot bi dawuloo benn yoon. yaa ngi leen Ousmane su ma bàyyi dafa ma seedaloon benn baat te baat boobu daf may def benn def may mettre benn rage de daf ma waxoon ni ma xaw ma kañ doon mais njaboot gi yëpp sa lay mujj boobu su ma mag la ñu suma baay suma yaay moo ko njëkk a dee ma ngay jooy pare moom mu topp si. dina saalit ci loolu maa ngay fàttale ko dafa saalit dafa dafa saalit ah ne wéy wéy yaay àddina jeex na wéy yaay jee na woo sama àddina tukki na dof ay quatre jours ah dof soo def tànki moom nii quoi donc li muy dund nii tey émotion bi nii c'est lu am la dof dof dof comme dof dëggantaan. donc euh, voilà ay ay ay affaire la yoo xamante ne ni euh, mënul ñàkk si àddina. Euh. léegi nag bi may wax ne ma njaboot gi sa loxo lay mujjee boobu moom day dem su ma mën day dem.

donc parti il fallait que je ni la même Moi les gars qui se révoltent ils na lu Ils révolter Ils lu leen di révolter ay là quoi ni booster di booster di booster booster à la longue euh, ni donc la même ni la ko alors. Euh, et j'ai compris après. li nga xam ne lépp la ma suma si du ma tënk après tey laa koy doo comprendre ne maa sant yàlla parce que li tax ma sant waxoon na ma ne ma nit am na loo xam ne dafay dee ak dara du ko taxale ak moom dignité ma gis ne dignité boobu yàlla dimbale na ma ba nekkal parce que permettre na ma li dimbali ak li dimbali Ousmane xam nga ne ku maanaam ku yàlla dimbali laa say relation yàlla dimbali laa it si ku ma gis bëggal ma boppam mënoon naa exploiter suma life si sens yu bëri waaye après bi yooyu yëpp xewee dama def taxaw seetlu ma ne est man am naa droit à parce que tey loolu nekk nekk xale boo demee ba làmb gisatoo ndey gisatoo bàyyi gisatoo grand frère yow war nga xam ne yaay kilifa gi actuellement te ku ñëpp di xaar mu defar kooku bu yàqee kan moo koy defar kon man amu droit loo xam ne parce que instant bu nekk loolu lay liir sax bu ma guddee àll ñu bëri guddee àll bu ma ñu bëri yendoo àll est am naa droit à

tey gis nañ ay nit yoo xamante ne nii tey ñu ngi leen di defal ay ñaan te ñooñu seen i pexe. Ousmane malheureusement noblesse jikko la woon démb waaye man la tey li ñu tuddee la noble noble mën na bañ a dara noble mën na bañ a am dara jikko la woon démb waaye tey man-man la comme waaye nañu xam ne noble.

est-ce que ni ñu waroon a mel mel nañu ko est-ce que duñu la blâmer benn instant sa noblesse ak bi ngay gedd gedd yu bëri yi. parce que yow mun na ko yow duñ ma ma blâmer parce que nag indi ma si sens bu bëri si sens bëri loolu mooy dëgg si sama leer ak particulièrement lépp lu mën a nekk nekk dans dans façon boo xam ne loolu la gën te Ousmane. may invité mbokk yëpp si li nga xam ne seetlu nañ ko tamit en tant que nit muy tey am na ay saay-saay yoo xam ne ay kilifa ñooy làqu seen ginnaaw làqu ñoom seen ginnaaw ñu di leen dogal ay ñaan si jàkka yi si jumaa yi si place sacrée pour ñu ñoom pour ñu mucc te ñun ñu sant ne tey saay-saay bu ñu fexee bu mucc mais est-ce que loolu kon parfois ñoŋat saay-saay bi. kon ñuy ñaan tey ñi nga xam ne tey ñoom ñoo xam nit ñi ñu dëkkal xam ñi ñuy defaral ñu xam lan lañ leen di defaral parce que nag ab saay saay ku fexe ba dooleel ko na nga xam ne dooleel nga loo xam ne day lor askan te lépp luy lor askan nga war ko dooleel maanaam beneen bi ma si dolli mooy ah. maa ngi invité képp ndaw képp koo xam ne am nga ay wéeru ñu nekk en présence dañ si góorgóor dañ si góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax parce que bis boo ñàkkee ay wéeju rek bis boobu ngay xam réellement lan la ngay jublu leen si doom te bu ñu am bu ñu am bu am maanaam pertu pertu nekk ak suñuy wéejur war si waslu ax ah, si seen dund ñu koy négliger di ko foye ba ñu dëdd ñuy rey ay nag wala def ay sarax toujours c'est pas important nañu fexe ba seen dund donte benn bom bu xaw a yàqu sax la ñuy am ñoo jox leen ko yàlla rek tax mu ëpp fuuf solo ñu bàyyi ko ñu dee ñu leen yow lay nag

mel ni que wax na lu am solo ñu ngi nekk jégalu ci euh, chantier yi ñu nekk fii ñu sommes en construction euh, du yàgg dara loolu yëpp dina deñ waaye dafa mel ni ñu dooleel ñoom russe yi ñoom euh, président russe nu mu tudd Vladimir Poutine ak ay Trump ak ñeneen ñi ba ñu am doole di leen ñaanal pour ñu gën a am doole tey coono yooyu noonu moo wàcc ba suñu njiit yi fi nekk kilifa yi fi nekk di def ay naka sa noonu ñu ñaan ñu gën a am doole seen doole jooju noonu pour lor ñu la loolu la wax euh, beneen point bi muy la ma waa ji waxoon ku la mujjee way moom moo lay mujjee naxar waa ji tegaat si ne ma jamono ji ngay dund sa way jur yi lépp lu nga xamante ne ni yow am nga ko sa way yi ñoom ñoo ko moom bekkere ñuy dee ngay door ut pour sa bopp kon yéen ñi seen way jur yi di dund actuellement nii lu ngeen liggéey rek jox leen ko seeni i waajur yi parce que di li ngeen di dundaat ak ñoom du yàgg bu leen fàtte loolu temps bi ngeen di dundaat ak ñoom du yàgg yow mën nga dundaat yeneen 40 ans mais mu dundaat ak yow beneen 20 ans donc 20 ans yi loolu liggéey rek jox ko ko quoi boo ko laataa xam dëgg mu dëdd la comme am ay waajuram ni ñu ko dëddoo tey waajuram yi ñaanal nañ ko gërëm nañ ko sant nañ ko devant moi nitu neen la comme ni ngeen ko gisee ni lan ngay tëjee. Ousmane li may rek moom ci santaat yàlla julli sonant bi di jégalu képp koo xam ne ni si bi nekk nañu lu ñu wax waaye lii si jublu rek mooy nit ñi comprendre ne adduna mënu defaru tàng dëgg amul dëgg googu nag lu ñuy xaar rek cherche si maanaam ñi ñu jiite waaye ñun suñu bopp ñoo ko war a tàmbali bu ko defee ñoom ñëwee ñu koy encore kenn ku nekk si ñun. na bàyyi xel si li muy voté parce que lépp lu voté tey wala dañ ko ko te lépp loo xam ne nit ki bokk na si li ko dooleel moo xam safar la moo xam lu jariñ la rek si am ay retour bu ëllëg encore une di fàttali rek jeunesse bi que nit ku a doon ngay bañ bi nga xam ne tey moom la ñu gars yi di naxe te ñu solloo ñu bu xeex jotee ñu xeex loolu bu tàcc jotee ñu tàcc loolu ku leen neex tey ñu ne ñu kaay leen neex nañu ku leen naqari tey ñu ne ñu noonu leen ak moom parce que yooyu yëpp si xeeti dirigeant la bokk. parce que tey nit bañ na nit te jotewul ak moom dara nit bañ na nit te amul lu mu mën a teg loxo ne lii moo tax mu bañ ko lu dul nit a ñëw rek nga ko bañ ko sans raison kon yooyu nañ ko moytu bu ñu bu ñu bañ ku ñu ilif mais na ñu bañ ku ñuy diriger. bu ñu gaay waxee loo xam ne wóor nañu ne amulun jari la nekk wala lii amalul njariñ askan bi amalul njariñ nañu taxaw ñu lànk bañ loolu ba tëdd si ñag parce que nag bu ëllëgee ku nekk yaay tëdd sa bàmmeel te képp ku tëdd sa bàmmeel di nga am loo rëcc wala nga am loo loo loo xam ne koy koy sante kon yàlla nañ bokk si ñi nga xam bu ëllëgee bu am wala lu ñuy encore une fois c'est la jeunesse qui perd ba këttuñu la jeunesse qui perd ñun ñun la ñuy rey ñun la ñuy hospitalisé te ñoom ñi nga xam ne tey ñoo fi taxaw di laaj li ñu gën a bëgg tey bu ëllëgee bu ñu faloo loolu la ñuy gën a bañ ku leen yuuxu ku leen contre ku leen defuñu dara te tey ñoom lañ gën a bëgg loolu boo demoon tey dans l'opposition koo si laaj li mu gën a bëgg tey mooy nga sànni xeer le président Macky Sall bu ëllëgee bu faloo loolu lay gën a bañ ñi xeexoon pour le président tey boo xoolee majorité bi ñenn ñi fekkewuñu ñenn ñi ñu ngi si kaso bi ñenn ñi ñu si leneen kon tey nañu bàyyi xel ci jeunesse bi te jeunesse bi warul di perte parce que nag bu fekkee préparé nañ ñu comme ay relève bu ëllëgee waruñu mettre sax seen terrain kon maa ngi ñaanal yàlla bépp jeunesse fu mu mën a nekk ci àdduna yàlla na mucc waaye yàlla nañ comprendre li war a tax ñu ci barke weeru euh, loolu moo nekkoon euh, émission amul tabu euh, nekkoon nag tey di dalal ndaanaan boo xamante ne ni ndaanaan la ci biir ndaanaan yi mu wax rek loo xamante ne nii lu am solo la si suñu dirigeant yi mu may fàttali Ibrahima euh, moom mi nga xamante ne nii moom moo àndoon nag ki nga xamante ne mooy Cheikh Kanté Ibrahima day ndellu day jël jaasi ju tóor si yaramam dugal ci bët bi luxat yi nee na ba waaji faloo da ko écarté ma ne ko dina la écarté parce que nooy jëlee kuy ndellu nga dëkk dëkk def ko si sa sécurité am <laughs> boo boobu boo. <laughs>

mais mooy da ngay sa c' est normal c' est tout à fait normal. c' est bu fekkoon ne les nervis s' yàlla rek tax. loolu ragal waaye nag comme da leen doon fay. ay gaañ fay lañ. wala léegi mu leen fay mu leen def le contrat. donc suñuy autorité nañu xalaat ba ku ko jiite waaye ku ko diriger diriger mooy jël bu. kenn du ma diriger di ko di ko ñotti. bu ko jabar nangu bu ko bu ko bu ko jëkkër nangu jabar nangu sax moo gën a yomb parce que. loolu lépp lañ ko waxtaan c'est mieux. ku nekk am na droit. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakaatu